Méticulture Culture. jappat nan dogor de drogue bu beuri kon ci por autonome bu ndakaaru tollu ci temer ak ñaar fuk ak juróomi juróom-benni kilogram yi cocaïne buñ ko xayma ci xaalis kon tollu na ci juróom ñenti milliards yu top kon juróom-benni téeméeri million ci sub CFA bateau Grand Nigeria moko fi dugalat commissaire na Keita yekati na ci ay cadeau talibé yu ñuy tal dem sax ba di leen di fat ñoxo bay Diouf mi nek kon directeur promotion des droits de l'enfant nena kon faaw ñepp and ci ngir xex mbir mu ni mel syndicat yi botu ci kat yi euh, syndicat kat yi kon botu ci euh, G20 ñom suba dañuy dem ci ab débrayage bu fukki waxtu jotee ci lañuy ñuy di dakal njàng mi aljuma mom duñu fasé xanti ak moromam reportage bi tay ñuy waxtane set ak selal ak way bi fi ci mim rew li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci bolé nee ni ponk ba ci biti rew tagat yaram soga dugg ci patch bi ñu jaglé la dak ciosan mu gën ci fëskan professeur Iba Der Cham mi nga xam ci njabotu ko marien yi ñoko don sargal waye tamit ci la porox ndol wax ci bindat bindaat wa euh, rew mi euh, festival de musique urbaine benn euh, anuma bo itam daal nañ koy kon euh, fésal ni ki démb ca grand théâtre national Doudou Ndiaye euh, Coumba Rose leneen loo xam si dinañ ko waxtaanee ci biile jotaayu xibaar moo di Mouhamed Ali Ndiaye nekk nag ab rappeur ñu gën koo xam ci lias nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural di Culture ñu ñaanalante Lamine Ndiaye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Agriculture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal mam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp lay duggee ngeen ci yaatal gi mu di kon duwaanu réewum Sénégal bi nga xam tegaat na ca poor otonom bu Ndakaaru dorog bu takku toll sax kon ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benni kilogramme yi cocaïne loolu nag kon ñi ngi ko fekkaat ci euh, bateau bile di euh, Grande Nigeria nga xam weeru juin atum 2019 itam jàppoon nañ kooko dorog Aminata Ba lu tollu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn kilogramme drogue cocaïne lañu fekkati ca port bu Ndakaaru niki démb ci talaata bi ginnaaw bi waa unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires UMCC bu douane bu port autonome bu Dakar ndaw police scientifique ak yu octrice bi ñu duggee ci bateau Grande Nigeria bu Grimaldi laboratoire bu police scientifique firndeel ni cocaïne la drogue bi ci xayma mu ngi tollu juróom-ñeenti juróom-benn euh, fukki millions ci suñuy koppar ci weeru juin atub 2019 bi ñu weesu ci fàttali bato bi di Grande Nigeria bu Grimaldi fekkoon nañu ca lu tolloog benn tonne cocaïne ba ñu tegoon ci loxo ñu bëri waaye dañu leen mujjee bàyyi donte takkader yi ñu ngi def lu ñu mën ngir fagagal ñiy dugal drogue ci réew mi xeex bi du doon lu yomb ndax ñu bërit ñu seen xel màcc ci wàllu kaaraange dañoo gis ni sàmbabu yi lii du leen tax dellu ginnaaw. Aminata Ba ci drogue boobe la ñuy des ak xayma gi ndax kon bii mooy ñaari yoon boo xam si euh, daal na ni euh, fekk ci bateau boobee di euh, Grande Nigeria jàppaat ko ndax nag weeru juin atum 2019 fekkoon nañ ko ci lu ëpp wala sax lu jege kon tonub cocaïne bi yoon nag daal dinay dem ba ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn kilogramme yu cocaïne loolu nag tax na ba na Keita nekkoon fi commissaire boo xam si jëm na ci ñuy xeex wàll woowee daal ci yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko moo nekkoon ganuk 9 11 continent yep Amérique ak Europe ak Afrique foo di dem ci diggante bobu fi ñuy béyee euh, drogue bi diko fa produire fiñ koy consommer en masse ba États-Unis Europe fii foo foofu jóge rek mën nga fi dem mën nga fi indi drogue bi stocké ko yi tamit jàllale ko feneen reconditionné que fii Dakar lu tax mu gën a yëngatu c'est parce que dañu am port am ay yoonu biir yi nga xam ne day dugg biir Afrique yooyu yëpp nekk ay données nouveau ñu ngi ci zone ouest africaine bi nga xam ne tamit terrorisme daf ko tiim ba dafa créer ay poche d'insécurité yi nga xam ni day favorable soo ci yokkee proximité frontières yi c'est-à-dire frontière ni mu yomb a jàlle yokk yi tamit ñun bett bin ñu bett ci li nga xam ni suñu ay des na mat par rapport ak phénomène yu mel nii ñu mën ko taxawu ni mu demee il faut que drogue bi di ñew à chaque fois que ñu japp dara am na lu jall ñom non la ñuy pratiquer donc tay conséquence bi rek moy tay li ci nek moy effectivement force de défense et de sécurité bi jël nañu mesure danger bi est-ce que réponse yi ñuy donné doy na doy na carrément en tout cas jël nañu mesure danger bi ñu koy top motax ñu ci am li mais mënon nañ ci am baña am dara fekk drogue bi mu ngi jall ci lu bare bare bare man duma ma dara problème bu ñew rek damay taxaw pour comprendre que soo ko comprendre natt ko soo ko nattee ci ngay mën a organiser li nga xam ne moom ngay indi ci tontu mais bu fekkee ni ci résultat bi rek la ñuy demee dañuy am satisfaction ni que ni teew nanu mais ci sama avis tant que gisuma ay indicateur yu ma won ni taxaw nanu fi ñu war a taxaw carrément ci endroit yi muy jaar yëpp yëpp yëpp ñu am une présence effective un système d'infiltration bu efficace fii ak bitim réew tant que amuñu taxawaay yooyu dama naan am na lu des mu nekkoon kàddu yu commissaire Cheikhna Keita nekkoon ci ay jamono Diaw Courtis nekk kër gi nga xam si kon ci wàllum uh, takk deer yi ñooy xeex lépp luy wàllum euh, dorog ak euh, ciné bar ñu daal di wax ci leneen ak taalibe yi nga xam si kon euh, jamono ji daanaka ay at a ngi nii ñu nekk ci ay jafe-jafe sabab li moo di dañuy jànkonteeg jafe-jafe yu metti ca fanuy jànge bi ci mujj ni ki barki démb kon lan daal di faat benn taalibe ka koy jàngal sax wala kon ka koy jàngal dafa bàyyi woon kenn ca dongo ya fa mag ngir ñu daal koy wàññi mu jaare fa ñàkk bakkanam nekk mbir moo xam si nag ñoxo baay Diouf nekk ca direction bu promotion des droits de l'enfance ñu koy daal di ñaawlu bu baax a baax moom it kenn la woon ci gani 9 11. di jàll aussi ñi nga mooy waajur yi. waaye tamit di ko ñaawlu ndaxte lu mel noonu su amee wax dëgg yàlla te moo xew si diggante ay ndongo. day nekk lu ñu metti euh, ñun dañu dañu jógul si di lijjanti di nemmeeku xale yi li nga xam ne noonu la ñuy dundee. Euh, si biir daara yi ak li nga xam moom aussi moo mën a yàqanal seen seen nekkin. Euh, pour donner un exemple, euh, depuis samedi passé, nous avec le ministre de la Femme, de l'Enfant et du Genre, euh, Madame Ndeysali, nous sommes ici à Lévis, euh, nous sommes fait un semaine passée nous sommes à Saint-Louis. di nemmeeku daara yi di xool xale yi naka la ñuy dundee waaye aussi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund rawatina sensibilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def si waxtaan ak sëriñ daara yi ci xale yi naka la ñu war a nekkee si seen biir waaye tamit ñoom tamit naka la ñu war a nekkee ak xale yi donc euh, tey jii mbir moomu daf ñu fekk si liggéey euh, si suba si nii ñu ngi war a dem si daara Thierno Samassa ak daara bi nekk Matam daara Thierno si Alioune Thiam bi nekk Ourossogui donc pour wax la rek ne nguur gi jógul toujours di jéem a euh, àddu si le mel noonu aussi a

ñu wax ci wàllu njàng mu suufe mekk mu diggu doomu mi syndicat jàngalekat yi bootu ci G20 ñoom nag kon ñi ngi daal di ah, nam ah, amal seen ñetteelu plan d'action ëllëg kon ah, ci alxames ji ne nan bu 10 heures jotee ci la ñuy dog kuur yi aljuma moom du ñu faste xànc ak moroomam te it ayu bés bële di ñëw dinañ ko tollanti ñu teewlu ci loolu kon Mbaye Sarr mi nga xam si moo yore kàddu ko G20 gannaaw jokkoom ak King FM. g dafa jàpp ne dafay lancer troisième plan euh, d'action bi nag ci ñaari mi ngi tàmbali alxames fanweeri fan ci weeru janvier par un débrayage à partir de dix heures ñu toftal ci ajjuma fanweeri fan ak benn ci weeru janvier toujours par une grève totale ñaareelu phase bi mi ngi tàmbali talaata ñeenti ci weeru février par un débrayage à partir de dix heures ñu toftal ci ñaari fanu grève mooy fan ak alxames toujours ci par grève totale bu ci troisième plan d'action bi nag te gouvernement du Sénégal saafarawul lii ñuy wax dañuy organiser marche nationale le mercredi dix neuf février ci Ndakaaru nga xamante ne bi su boobaa jàngalekat yëpp dañ leen di woo ak gox bu ñu mën a nekk ci Sénégal moo xam Casamance moo xam Matam la moo xam Saint-Louis la moo xam Kédougou la ñu baat la Makadam a Dakar wan président de la République suñu naxar wan gouvernement du Sénégal suñu yéene mi ngi noonu nekkoon kon euh, kàddu yi euh, ki nga xam si moo di euh, mbay Sarr yore kon lépp luy wàllum jokkoo ci kuréelu ko jàngalekat gile di G20 yegsi nañu kon ci reportage bi tey nag ñuy waxtaane set nekk mbir moo xam si ab baat la boo xam yomb wax ko yomb na lool waaye daanaka jëf ko jafe na rawatina fii nii ci réewum Sénégal li ko waral nag moo di jëfinu maa tey gi nga xam si daal di koy nemmeeku ci biir réew mi reportage Ndeye Mati Dieng. boo defee taxaw seetlu di xool réew mi dafa mel ni lu neex waay def. mbedd mi mbeddum buur la ay kàddu la yu ñuy dégg bés bu yàlla sàkk te gisuñu buur tax ba kenn joxu ko cër salte gi firnde la ci sàmba si gis ne doon na neex ku nekk jàppee woon ko ni këram. dama yaakaar ne rek lépp loo xalaat ne lu baax la sa biir kër war nga def de telle sorte que boo génnee nga fekk sa biir ku si nekk gis boppam épanouissement mën a am respect la rek boo xalaatee ne boo tuuree sa biir nekk avec ça va ci kàddoom salte gi ci ndaw ci jëf ak ci jikko xewul woon ci amoon éducation mais léegi xale yi amatuñu éducation ñun doon jàngi en l'époque dañu doon sol tenue correct boo doon jàngi doo froissé sa bopp da nga doon léttu normal xale yu góor dañu leen doon coiffé mais léegi loolu amatul fii boo seetlu ñu bari duñu defar seen néeg parce que xëy rek dem bii si léegi koo ci gis bu duggee day am xet yow da ngay ut sa mouchoir taf sa bakkan kenn seetatul kaar yi da ngay dugg gis si ay verre kaasu café yi lu ne mais kenn mën mënatul set. set dafa laaj ay mesures d'accompagnement Amadou Diop. boo demee si yenn milieux yi au centre bi mënoo dugg si immeuble boo duggee gardien yi ne la non non su fekkente ne nii tamit soxla nga sa bopp tu es obligé ngay làkk si ay murs yoo xamante ni wala nga fay def loo xam ne keneen ku fa jaar du am lu ko neex kon yooyu yëpp état war na si veiller tegal ñu ay mesures d'accompagnement boole kook ay mesures yu sévères yoo xam ne dinañu pousser envers ñu set. Mamadou Matar Bari mat nañu maam moo waral laata mu ñuy tontu daf ñoo tooñ. yow yaa jëkk waaw waaw ku la xool rek yaram bi day daw. boobu man nag maanaam. Ah, yow yaa fi yaa fi bañ a tali dañ koy bale ba set dëkk bi réew mi ñetti la bëgg defar réew mi setal ko setal gan jàng di julli ko réew mi jàmm rek moo fi Sénégal ak li fiy xew yëpp nit ñi jàpp ne salte moo ko waral ndax ñu ne set ñaar la ci biir ak ci biti maanaam ci jëf ak ci jikko. jaajëf Ndeye Mati midi moo jot ba tegal fukki simili benn ci aéroport international Blaise Diagne. Côte d'Ivoire lañ koy daal di tàmbalee Kumba Ba gannaaw ba ñu la nuyeew ba noppi ak église bi nga xam si daal dinay dellu gannaaw ci doxu ñaxtu bi ñu fa jàppoon fukki fan ak juróom ci weeru février ma bi nga xam ne jàppoon nañ ko fas yéene ko ni nga ko waxee kon nag ñu ngi jël dogal boobu daal ni annulé nañu ko di li taxoon jóg marche boobu nag mooy fexe woote ak daal ci élection yi ñuy war a amal ndax Serigne Saliou ren jii ci atum 2020 bi réewum Côte d'Ivoire dafa war a soobu ci élection faluk njiitu réew la diocèse bu Abidjan nag moom nee na li waral ñu jël dogal boobu mooy dañuy bañ daal mu am ay infiltration maanaam ñu ci bokkul ñëw dugg ci xajamal yëf yi loolu tax nag bi ñu seqee waxtaan ak partisan yu PDC yi naka noonu yu RHDP nee ñu daal euh, marché bi waroon na am solo loolu waaye loolu moo tax daal ñu gàntal ko pasteur bii di Jean Pierre Coutois moom nag nee na bëggul kenn ñàkk ci bakkanam bëggul deret tuuru lolo waral ki yor sen joko di abbé Augustin ubru mom mo xamlé lolu mom mo yor wu kon église catholique ba ci ab conférence de presse mom amalon jano ci ak taskatu xibaar yi. Nigeria la di euh, Buhari mi ngay wo askan wa ngir ñu gën leena jappalé ci ñu jamarlo ak wa Boko Haram. néna mom moom la am ci ñi nga ni non la Boko Haram di wëyé di lemberi réew ma fofu di fa def lu ko neex bañu tambalé ak légui Muhammadu Buhari di wo kep ko xamni ko compatriote nga kep ku fekk baax ci réewu Niger.

Mozambique lañ koy jeexale ñoom nag jàngoro jile di euh, coronavirus te mu daal di xew ca réew mu Chine moo tax ba kon ña fay daal di bàyyeekoo ñu lànkal leen jamono ji jox leen visa. coronavirus boobu moom moo leen tiital kon gouvernement bu Mozambique mu xamle démb ñi daal dootu joxe benn visa boo xam ne doomu réewu Chine moo koy sàcc sàkku ngir ñëw ci seen réew boobu li ko waral nak di euh, épidémie de pneumologie virale bi nga xam ne faat nagum lu ëpp téeméeri doomu aadama ca Chine euh, épidémie nag bi mu tàmbalee. léegi moom coronavirus ñu bari ci ay réew def nañu ni Mozambique def maanaam daal di wax seen ay ressortissants ñu dakkal lépp loo xam ne déplacement la bu ñu doon mëbët ngir jëm ca réewu Chine kon fii tey la taxaw sëñ Saliou ci xibaar yi soxal biti réew. cant ngërëm ñel na la bu baax baax kumba ba ci faram-fàccee xibaaru biti réew yi ñu jàll ci tàggat yaram. xibaaru tàggat yaram yi Papa ma jaxate Saar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne saliw di nuyu bépp auditeur bu rajo King FM. football éliminatoire mondial ci wàllum jigéen ñi U20 Sénégal mu mel ni mi ngi ci ah, waajal gi ah, rawatina nag kon daal di war a jàmmaarloo ak Sierra Leone. Euh, Sierra Leone muy match retour bi nga xam ne euh, war nañu ko jongante euh, ci match aller ba nag Sénégal moo gagné woon benn bal ci dara ak léegi war na def lu tollook fukki fan ba tax gaynde yi jigéen yi bëgg a benn fan ci weeru février. gi ñu jëm seen dëgg ak équipe bu Sierra Leone boobee nga xam ne léegi gën nañu leen a xam euh, ki leen di tàggat euh, ñoom gaynde yu Sénégal yu jigéen yi amagul ñaar fukki moo ko xamle mu ngi wuyoo ci turu Souleymane Diallo ñu teewlu ay kàddoom. c'est vrai que bi bu ñu doon dem Sierra Leone xamuñu ko woon bu baax mais buñ ñu jógee foofu léegi am nañ benn idée très claire de l'adversaire mais lu wóor te wóor c'est pas du équipe boo xam ne effectivement buñ ko bàyyi trop initiative war nañ mën a créer ay ay problèmes. parce que nous nañu ay jigéen yu baax surtout au niveau du euh, milieu de terrain maintenant ñi sétanu effectivement fàtte match buñu def Sierra Leone De mettre en place benn stratégie pour nous permettre effectivement de gagner match bi fii kon ay kàddu Souleymane Diallo mi coach équipe nationale bu Sénégal ci jigéen ñi amagul ñaar fukki at eh, ci seeni mag nag muy équipe national senior bi ñoom seen ñaari jongante yi waroon dox seen diggante ak équipe bu eh, Libéria ñeel premier tour éliminatoire Coupe d'Afrique 2020 ñu jàppoon ko weeru février gi ñu jëm mujj nañu ko randal ba weeru avril confédération africaine bu football eh, di kuréel gi ngànk football bi ci Afrique moo ko xamle ni ki démb. mi ngi noonu wàllum la ñuy wax ak gën a dëgëral taxawaayam ngir euh, def ay jéego ci atum 2020 bi. ñoom gablu yi recruté nañu ay joueurs yu bëri bokk na ca Mamadou Lamine Diop Baara Louis Adams ak Pape Gora gay ñi nga xam ne dañoo dellusiwaat ca AS Douanes ma ñu nekkoon yokk ci ñu jënd beneen joueur boo xam ne ca d'Arc la nekkoon mu di Lamine Badji loolee la ko waral mooy gën a yokk seen dëgër laay ci saison bi nga xam ne AS lu mooy coupe euh, compétition yi nekk ci réew mi yoo xam ne war nañu ko jongante mu di championnat bi naka noonu it coupe yi euh, mooy teewal réewum Sénégal ñom wa douane ci édition bu njëkk bu basketball Africa League mi wara a eh, képp kuy champion ci sa réew ci continent bu Afrique muy édition bu njëkk bi. rugby la daldi jéxalé wax kon ci Kenya mi nga xam si mo wara dalal ñatti euh, coupe d'Afrique yi nga xam si moy am ci walu U20 mom euh, fédération ñom wa fédération africaine bu rugby ñoo jël togal bobé denk wa Kenya ñu fas dalal ñetti euh, coupe d'Afrique yi nga xam dañu ko jagleel ñi amagul ñaar fukki at lu ko rek atum 2020 2021 ba ci 2022 édition 2020 bi nak ñu ngi ko japp fukki fan ak juroom ñeent ñaar fukki fan ak ñaar ak ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru avril gi ñu jëm ci Nairobi mu war a euh, juroom ñetti équipe yo xamné ne réew ma koy dalal di Kenya ci la bokk nak nonit it Zambie Namibie Madagascar Zimbabwe Côte d'Ivoire Tunisie ak réewum Sénégal Abdou Adama Bakhoum di responsable formation euh, ci rugby Afrique indi na ay leeral ci lu waral ñu tànn euh, li nga xam ne moo di réewum Kenya ñu teew teewlu jokkoom ak rajo King FM. rugby Afrique ci compétition yi nga xam ni moom la ñu jagleel xale yi moom mooy ñi nga xam ni seen euh, euh, ñaar fukki at matagul compétition boobu nga xam ne compétition africaine la nga xam ne juróom-ñetti équipe ñoo koy bokk te Sénégal bokk ci rugby Afrique dafa décidé jox ko Kenya. Kenya nag dafa joxe woon candidature am moom yeneen i dëkk. Euh, yu mel ni Madagascar yu mel ni Tunisie yu mel ni Côte d'Ivoire. waaye li tax ba rugby Afrique décidé jox euh, choix bi Kenya moom mooy Kenya dafa wane ci dossier ay soutien yu bëri ay garanti yu bëri waaye garanti bi ci gën a mën a càpp moom mooy garanti bi comité olympique am joxe. ak euh, ministre des sports en personne lettre bi mu bind pour wane ni ñoom seen bopp nañ ci dugal seen loxo pour que organisation bi nekk organisation bu baax donc loolu bokk na ci li tax rugby Afrique mi nga xam ne moom moo yor lépp luy rugby ci Afrique décidé ne nañ ko jox Kenya ndogal bi tamit am na ak bu ñu dañu waxoon ni dëkk buñ ko jox tamit nañ koy jëm a jox dëkk bi par na pour ñetti at ñetti at yu nga xam ne dañuy xam ni ñetti at yii yëpp ci dëkk bi lay demee donc ñetti at yi ñëw ci Kenya lay demee dina permettre tamit Kenya mun a tabax dara rugby Afrique tamit mun a tabax dara lu nga xam ne dañ ko mën a commercialiser ci euh, ci biir compétition boobu. mu nekkoon Adama baaxum di responsable euh, tàggatu gi ci rugby Afrique di kuréel gi yor wàllum rugby ci Afrique ak yeneen Ndiaye mi nga xam ne mooy président commission compétition rugby ci af euh, continent bu Afrique nekkit président fédération sénégalaise bu rugby moom dafa jàpp ne lii dina tax ba ñu gën a mën a ñoŋal wàllum rugby fii ci continent bu Afrique Serigne Saliou. fii la ñuy yem tey ci xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf papa ma jaxate saar ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon ak njabootu Marien yi nga xam si dañ doon delloo njukkal professeur Iba Der Thiam moom professeur Iba Der Thiam sax ñu fàttali ni moo jiite kuréel gi nga xam si dañuy bindaat taarixu réewum Sénégal loole tamit daal na ci ay porox ndoll gannaaw mbégte mi wax ne am na ko ngir wax tolluwaayu mbind moomee xam naa ko dèjà mais décoration la boo xam ne boo man lu rëy la parce que am naa dèjà lu mat juróom-ñaari décoration ak juróomi décoration yi moom UNESCO UNESCO defaloon mais bii décoration dafa ute ñoom ndax bii décoration dafa décoration moo xam ne yoon ci yoonu yàlla la yoonu lislaam la ci yoonu tijaan la ci yoonu Cheikh Omar Foutiyou Tall la mu doon nit koo xam ne lépp tax ci moom di nga tey si ci man dafay doon loo xam ne dama koy fomp fonk jox ko cër bu mag a mag a mag mu ngi avancé bu baax a baax a baax di sant yàlla. incha allahu taala. kàddu yi professeur Iba Der Thiam ñu wax kon ci édition festival des musiques urbaines Anu Marbo bi nga xam si moom lañ duppee mois loolu nag daal nañ koy lancé Niki Demb démb ca grand théâtre national Doudou Ndiaye Kumba Rose Mamadou Sow paix et développement mooy thème bu e édition bu festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Mabo Sénégal mom la kat ivoirien bi di Asalfo lead vocal bu Magic System Mais amal festival bi ak i tan tànn muy invité d'honneur. Sénégal day ñëw bok ak euh, Côte d'Ivoire li nga xam ne moom Adam ak cosaanam xam ngeen ne FEMWA festival la bo ben ben ay bés lay Sénégal dina indalé ay katam ak ay artistam Amna sax bëccëg boo xam ne Sénégal la ko jagleel wane lépp loo xam ne wàllu aada ak wàllu cosaanam la. joriñ bi yor culture ak communication Abdoulaye Diop rafetlu lool tànn gi ñu tànn senegal te it jot na xamle ni senegal ak Côte benn lañu euh, Assalfo, euh, je ne sais pas comment te dire bonjour, parce qu'il faut qu'on passe notre palabre d'abord. Qui di son excellence Sékou Touré dit ambassadeur bu réewum Côte d'Ivoire bi mu jëlee kàddu delloo njukkal Assalfo la def ndax fi mu yóbbu couleur yu réewum Côte d'Ivoire DJ Awadi mi fa teewoon di je suis tellement fier de Assalfo. dama am mbégte loolu ci Assalfo maa gis système bi muy judd ba bi muy màgg ba doon tey groupe de musique bi jiitu ci Afrique loolu yëpp ci sama kanam la xewee te loolu mbégte mu rëy laa ci am ndaxte xam xamna ne yomb amagul woon lu weesu musique Asalfo leader le fii ci continent bu Afrique daanaka mën naa ne dafa bind histoire jaarale ko ci musique africaine. Euh, festival bi dinañu ko amal fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom-ñeent si avril 2020 sa Côte d'Ivoire. jaajëf Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci découverte bi. découverte. découverte bi tay kon ñu leen di gëna a que Mohamed Ali Ndiaye mom nak euh, turam deug wala sax ni koy woowee ci jamono ci euh, milieu hip hop bi moo di euh, Lias mu daal di fekk baax fële ci Bargny jamono ji nak mi ngi waajal fessel ab album ci wër wi ni dugg di février Aminata Ba. ma ah, baby wax ma lo ma ñamal li gën neex man xawma lu mu doon mais lu ma yu ma number one jox naa la couronne muy def musique hip hop mu door ko ci tout 2013 doomu baax ñi bi di Mohamed ci turu Mouhamed Ali Ndiaye ñu gën koo ci commencé jàngante depuis 2010 mais vraiment bu me commencé def sama activité man donc sentir le maa de def musique c'est en 2013 laa commencé def musique je me dis que je fais tout ce qui en rapport avec le ma sentir def c'est carrément hip hop quoi ci branché lépp lu mu mën ci def du génn cadre boobu en 2017 c'est le génnee album bu Dupiko duppee mise à jour di ci retracé jaar-jaaram jamono ji muy 2020 en 2017 je me rappelle la def si single infiniment moo et même Inch'Allah, bientôt en 2020 Inch'Allah, voilà, war laa mon deuxième album bi nga bientôt incha allah dana février bi. ñëpp xamé ko Lias ci milieu hip hop bi bi le surnom ëmb lepp limuy dund. avant may commencé def hip hop c'était en 2000 2005 euh, même laa tuddee sama bopp Liache parce que en fait tout bi dafa dafa ëmb loo xam ne moo nekk sama passé sama sama enfance am ay initial initial bi mujj ci liage bi moo AS

Abdou Guité Seck woykat la bu ko ci famille ngéwél ndar mu dëkk la dooree way ak waa wokk di woon groupe bu boole ay sénégali ak i tubaab di def rock ak mbalaax xanaa loolu sax moo feeñ ci musigam tax ba nu ko neex lay woyee te du tee bu génnee ñëpp koy bëgg. man sumay bind en général li may njëkk xalaat mooy euh, jéem a bind woyu saa su ne te di éviter di woy euh, woyu moment donc nga xam ni même bu ma fi nekkatul ëllëg woy woowu ku ko déglu rek dana am lu muy def ci yow mbaa lu mu lay jàngal donc mo waral bés bi ñëw waral sama doom bu waral nelawna so len 2000 wok mo gagné won prix découverte RFI 2001 ñu nominé ko victoire de la musique ci catégorie world ak sen album bi di Keman lolu yep Abdou Guité ko ba 2002 mu enregistré album bu njëkk évolution ñaari at lañ ci tek mu génné choona aduna def ci juroom benn titre lépp di mbalax mu ci wax nak lu soxal askan wi. ñun lolu lañ fi en tant que waykat dañuy yëkëti suñuy kàddu pour di fàttali mbaa di yeesal mbaa di en tout cas di prévenir wala di euh, sensibiliser. waykat bi boo ko nee jàkk doo ko laaj fu mu dëkk. ndar-ndar la ci doxin ak ci waxin. Euh, def nañu seen yu mag a mag ci àdduna bi. lu weesu maamu grand théâtre ndax Montreux Jazz ku ko wax rek ànd ci ak Phil Collins ànd ci ak Herbie Hancock Buddy Guy Carlos Santana ça c'est des monuments de la musique dem Olympia daje fa ku mel ni Youssou Ndour da ngay daal di sant yàlla. su may moroomi moroomi moroomi moroom amaana amuñu opportunité boobu. way gi muy def nag di loo xam ne ci deretam la nekk ndax ku xamul jabu sekk mi magam dégg nga ko daanaka moo ko jàngal way ba mu jaral ko mu bàyyi école ba mu demee ba classe seconde ndax mu ne mënatu leen woon boole ab duggite Seck bu weesoo way jot naa investir ci mbay lépp rek di firndeel bëgg gi mu bëgg réewam ba ci ay biir wayam sax lépp lu mu génne def ci ñaax ndaw ñi ngir ñu gën a fonk seen bopp fonk itam seen réew bokk na ci waykat yu xam ne boo leen seetloo mosoo leen dégg ci buzz mbaa ci njombe xanaa kay toog ak diir te du génne single te loolu sax jeex na ndax ñëwaat na ak coup di album bi mu génne ngir firndeel dellu sem ci musique sénégalaise jaajëf euh, Ndeye Mathi Dieng Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal beneen woykat boo xam si tamit moom jamono ji mi ngi wane boppam di wuyoo ci turu ba Guissé laaj ak tontu dox na digganteem ak Ndeye Mathi Dieng. Demba Guissé ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaar Mathi di nuyu waa King FM yëpp ah. yow lañ dalal tey ci Midi Culture. Midi Culture moom sunu yëf la gannaaw culture yi ci saf saf. kenn dootul laaj nag kan mooy Demba Guissé ndax defe naa ni ñëpp la. dafa mel ni bi nga sottee ci la la ñëpp xam Demba Guissé fan la jaar ba ak si fii mu ak si man nag ci ay concours laa génnee. mel ni ay xeex si biiru bi Sundur organisé woon ay Kasanga bi ma demoon représente Sénégal Mali ay triple ay Oscar de vacances yëpp nekk yoo xamante ni yàlla dimbali na ma ci ma jot ci jaar te yàlla aussi def aussi bu ma si jaar rek nekk meilleur bi loolu weesoo nag ci laa commencé def ay single ay vidéo yàlla def aussi ma ci am ay programme nga raam tey ba ak si fii yàlla def at nga commencé ko ñeenti at ci nar a waajee. comme nuñ koy waajee woon rek quoi waaye bii nag dafay extraordinaire parce que bii dafa spécial parce que quatrième année bi la et ñëpp aussi ñu ñu xaar ñu indil leen leneen loo xamante ni du luñ doon gis parce que tout le temps damay wax ni événement moom boo bëggee nit ñi di di gën a kontaan ci yow ci événement yi dangay def lu nga xamante lu raar la quoi. lu raar mooy def lu ñëpp deful parce que c'est vrai que kenn mësul def sax mën naa day xaw a jafe waaye lu loo xamante ni bariwul ñu la war préfère rek mu jox gars yi rendez-vous le 7 février. ko ci xalaatuma ko. <laughs> est-ce que ci way la. mën na nekk spectacle. mën nañu xaar dem ba gisee xaw a génn way fël feneen. waaw fël feneen waaw dafa spectacle bu extraordinaire parce que nit ñi dañu xaar loolu aussi quoi parce que léegi way bi bari na. neex na c'est bien baax. quand même nañ ci doon leneen quoi bu ko defee gars yi xam ni kat leneen nañ fi lu dul way bi. te it ku ne xam na ni nag ah tukulóor bu ñu xewlee séeréer si ñëw joolaa yi ñëw soose yi ñëw njaago yi ñëw waaye wolof yi ñëw aussi Demba Guissé sa single bi nga mujjee génn ànd si ak sa mag muy Pendo ngeen tuddee ko doole mbëggeel ndax li ngeen ci bëggoon yëpp am ngeen ko ñu ngi ko ciy am parce que tey mën naan doole mbëggeel boobu tey gën a yokk popularité bi ak yenn programme yi nga xamante ni dañ ci daan woo Pendo kese wala man kese léegi dañuy boole programme bi dañ ci woo mag moom ñu koy defandoo mën nañ xaar yéen ñaar ngeen naa ne sama groupe mooy tëggal Pendo donc mën naa ne benn groupe bi la te bu Pendo di fansam bëgg laa la samay fans donc motax man la lu raar dañ ko gis inshallah rabbi. duñu gis ngay and ak artiste yi lu bëri di way lan mo waral loolu. bon xam nga loolu mom affaire de. pare ou bien pour am ben temps boko ko ak ñom la rek ah mais ya rien. musique sénégalaise bi dafa wara dox ñi def ay dio comme niko ko yeneen dëkk yi defee. waye fi rek la gis fo xamanteni vraiment duo yi wul ci artiste té warna bari hein ah. ci sa ben son bu tudd euh, Gise bo dañu gis nga andi benen style bu bess ci biir euh, son bobu da ngay waaj pour dugg ci afrobeat bi comme niko artiste sénégalais yu bëri di defee afrobeat bi moom yàgg naa ci dugg avant sax léegi gars yi di ko jël oo xam mais xam nga comme aussi musique dafa universelle euh, ak période bu nekk ak lañ ci sentir génnee dama ko génnee woon rek pour aussi marquer sama présence parce que dama doon def des fois su ma defee at mi ma defee benn affaire damay bàyyi benn at bi ñoo ma defaat beneen affaire donc loolu la rek euh, dooñu may dara lu ñu mën a dégg avant le set yii bàyyil sa caaxaan yi <laughs> xam nga woy suba moom artiste yëpp dañ koy daw damay acapella ndànk rek sama morceau bokk pulaar quoi inna la yoo sina ko fenda inna la yoo sina ko fenda inna la yoo jali kololo jali demba yaata la yoo fenda inna la yoo sina ko fenda <laughs> kon ñoo ngi lay jaajëfal merci li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck képp ku yaakaaroon ni dorog bi ñuy dugal ci réewum Sénégal jeex na fi ndax nga sa bopp tey la waalo gën a aay l'observateur ne dëgg la la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne démb rek ca port autonome bu Ndakaaru jàpp nañ fa téeméer ak ñaar fukki kilogramme yi cocaïne te nag dorog bu ñu toll ñu ngi ko jàppee ci bato bu mag bi ñu duppee Grande Nigeria te bato boobe boo leen fàttali ko ci weeru juin bi ñu weesu douane njëkkoon na caa fekk ki démb fini ci diwanu dakaru rawati na ci port autonome buñ ko xayma ci xaliss tollu na ci juroom ñent milliards yu top juroom benn téméré million ci xaliss CFA le quotidien li mo tax ñu wara a taxaw ci bateau bi di Grande Nigeria ndax da naka drogue bi ëpp doole bi dugg ci réewum Sénégal bateau bobé moko fi fii libération yene kay ne lu ci man di am dal li fi dugg ci drogue mom jamono ji mo ngi bëgg jéggi dayo té nak niki démb drogue bi ñu fi mujjé teg loxo douanier yi la leen may ba tax ñu loxo drogue bi ñu tollu modi dafa am ku leen dimbali baxé leen xibaar bi laata bateau bi di terre benen xibaar bi nga xam ne daanaka yéen kaay yi nu xëy ndool ñoom ñëpp ci lañ xëy di ci wax moo di taalibe bi moroomum taalibeem faat ca Linguère Vox Populi njombe dëgg moo xew foofee ca Linguère ca daara ja nekk ca Rawdu Rahim di dëkk bu nekk ca gox ba journal bi yokku ca ne daara joojee sëriñu daara ba da doon génn bàyyi fa ka mag ca daara ja kookee fàqob yaram doon wàññi kenn ca taalibe far duma ko ba mu jaare faa ñàkk bakkanam libération yéen kaay ne dëgg-dëgg di ndongo daara yi li a jéggi dayo te di waajur yi ba ci seetlu ci diggante atum 2017 jàpp 2018 fukk ak juróom-ñaari taalibe wulli nañ leen ba nu jaare faa ñàkk seen bakkan ci biiri daara te itam ci ñoo xam si lañ leen def ci ay ñaawteef bëri te ba fii ñoo ngi koy dund mu ci ay jéng ay xoqotal ba ci sax di leen yàqtaan grand place ne moo tax askan wi li nu bëgg moo di képp ku defati mbir mu ni mel ñu jëflanteeg li war te yoon def ca liggéeyam bañ caaxaar lu tol ni tar fatal ay ni yoon it war naa wax ci ñuy faat bakkani doomu aadama yi ci mim réew journal Rue 15 angle corniche bi gëstu bu yaatu la ci doomu adama yo xamni ne daanaka ñoom dañ leena a faat l'observateur jox kaddu gi ay sociologue waaye ñoom ñëpp daanaka ño bokk lu nu wax mu di kon raye yag na ci mim réew waaye jamono ji da ci raw teyit waral modi nin fi neewale jëf ju ni mel leneen lo xamni ci sociologue yi wax nañ ko ci biir l'observateur modi di li tax mbir mi di ëpp modi gaay ni tecc ci kasso yi ba nopi leen bu nu ñu leen di beddi tax ñuy nangi faaw bay def jëf jo xamni ci du leen gënal maître Papo kalinya ne faaw tak deriet gëna a seeni taxaway yokku setlu gi ak karange gi réewum Chine itam jamono ji amatul benn kaaraange la ko waral moo di jàngoro jile di coronavirus moo leen di bëgg a rey enquête yéen kaay ne jàngoro jooje di coronavirus réewum Sénégal rawatina njiit yi bëggunu benn yoon mu dugg fi ba tax jamono ji la ko dale aéroport international Blaise Diagne ak li ko war lépp la nu wër ndomba wër ndomba ku ko tudd sa xel dem ci làmb waxtaan wu yaatu la mbërum làmb mi di Balla Gaye numéro 2 seq ak record yéen kaay gaynde géejawaay gi ne jaloore bu nekk am na ko ci biir làmb ji waaye nag xalaatul benn yoon di bëre ba yegg ci ñeen fukki at juróom mi ngi noonu kon wàllu musique la ñuy jeexale jot jotaayu mi di Culture tay ñu àndil leen groupe Daara ji Family ci way bi ñu duppé baye yoon génne won ko atum 2010 ñu téwlo yàgg yàgg yàgga dina dani ci géew kenn ko jam naani nee la samaganya gaañaani ana suuture bi fi ñoom maam won woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon በጋስዳኖ ሉዩ ሞሙቶን ደግኻምሳ ቦበበን mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yem ak yéen ci midi culture yamoo itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñu doon may nopp ci 99 point ak ñi nu doon topp ci king fm point sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Lamine Ndiaye mi nekkoon ci euh, machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Kader Lo digital Yacine Pouy léegi-léegi kon alaaji Baye Cheikh mooy ñëwaat wóyal king feeling lu mooy looloon maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation midi culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm